ñu dugg ñu nga fa lu ñuy def ñu ngi ñuy topp waxuma laa nag li jëm ci téléphone bi yu demee noonu li xew tey dafa firndeel loolu ndax ñun dañoo jugee ci conférence de presse dañu doon defee ci siège du PRP bu Déthié Fall bi génnee noonu gis benn waaye boo xam ne mu ngi toog ci kaw suuf yaram mel ni kuy waxtaan ak ñeneen waaye yor téléphone am di ñu filmé gis téléphone sama sécurité gis ko ñu interpellé ko laaj ko mu ne moom brigade de recherche la nekk ñu ne ko ana sa carte professionnelle euh, mu ne lu ko génne walla yoru ko ñu xool ci ay bagages yi mu yoroon gis dara ñu jël téléphone am xool gis ni dëgg effectivement mu ngi doon filmer li ñu doon def li ñu génne ci seetlu li ñuy egsi foofu ca la ñu jóg may leen comme nee na ndew foofu lay dogal leeral ne mom police jëppal la bok da di génne carte professionnel am koy woné ngeen gis ni ci ni mu soloo kenn mu xam ni policier la ndax dafa civil eh, ni ñu jëflanteeg moom yéen ñepp gis ngeen ko ci vidéo ni mu doon noppal waxu policier donc ñu japp ni loolu du doy war la li téléphone am la mi ngi ñu war leen image yi daanaka bi ñu génnee eh, eh, kër Déthié Fall ba bi ñuy egsi ci moom mu ngay filmer di ñu xool te lii du tey du guléet lii nag euh, moo tax ñu yóbbu ko ca police ba fi ne nii tembe auto police ngi nii gaare sama buntu kër nee nañu téléphone bi lañu ñu si te dinaa leen ko yéen yéen ñëpp ngeen gisandoo ko su dee nag defuñu euh, buriwuñu ndax bi dañu mujjee am loolu problème boobu ci ñu doon surveiller fii dañuy ah dégg naa waa police dem nañu xam naa dañoo gis live bi moo tax ñu gaawantu taal seen oto dem waaye ñu ngi woon fii sama buntu kër téléphone bi nag saa ñu ko bëggee jël si mun nañ ko ñëw jël si loolu amul benn problème euh, lii nag du guléet may wax ni kër gii jàkkaarloog sama kër luyel nañ ko benn seen benn waay boo xam ne ci renseignement généraux yi la nekk lu mat at ak genn walla mu dëkk fii ñi daan seetlu kër googu bi événement yi amee ci mois de février mooy kër gu policier yi yéegoon yor seeni fetal di tiire mu jëm sama kër kër googu xam ne duma wax fii turam ndax am na lu may sàmm lu ma koy sàmmal mu dëkk genn wàll ma surveiller boobu ñu xam ñu dara keroog ci mois de mars bu bi tàngee ba ñu yëg ko yi dañuy dem taal char de combat seen véhicule blindé policier yi ñëw gaare fii ci buntu këram bi ñu xëy la lendemain la ñu gaare camion moom ak njabootam yépp ñëwal leen seen ngeen fàttaliku ci gannaaw bu yàggul trop tamit li fi xewoon mooy seen oto boobu nga xam ne ñu ko gaaroon ci sa buntu kër ay matériel électronique nekk ci ñuy espionné li xew ci biir kër gi ne ñenn ñi nee nañ ku demoon gannaaw kër sax seen oto boobu mënoon na ko gis loolu nag musiba la ba ñoom accrochage ak sama sécurité ba tey jii ñoo ngi yónnee wala di essayer xool fu ñuy jaar pour lañ fi bàyyi woon muy ordinateur bi nga xam ne ordinateur boobu ba léegi dañ ko bëgg a jël may wax waa police nag ni su leen neexee muy téléphone bi muy ordinateur boobu mën nañ ñëw jël si ko mën nañ ñëw jël si ko booguma Sénégal yi xam li na ci biir yépp ndax euh, am na loo xam ne ci suñu euh, kaaraange la bokk waaye may fàttali waa police national ni ñoom dañ fay nekk pour Sénégalais yépp dañ fay nekk pour kaaraange nit ñépp rôle bi ñu leen di naam mënuñu ci dara sax waaye du bu rafet sàcc si bëri na ci réew mi samba boy yi bëri na ci réew mi problème sécurité am na ci réew mi ñu jël seen dispositif boobu yépp ne dañuy surveiller Ousmane Sonko la lii am tey ñetti weer ci gannaaw ñun demoon nañu ba am firnde li bés bu ne fële sama bokk koñ bi la ñuy gaare seen ñaari scooter bokkul nag ak ñi nga xam ne dañ leen di teg ci koñ bi ñu mel nii ay ñii naan mel ni ay vigile ñii mel ni ay ay ay euh, euh, employé ci ay kër am na benn ministre bu ne fii ñoo dëkkandoo këram lañuy ñuy añee bis bu ne ñu teg leen foofu saa su ma génnee fu ma munti dugg ci ndakaaru ñu ngi topp ñu ngi may topp ak seeni moto ñetti weer ba léegi biñ ko biñ ko seetloog léegi amaana gën naa sori loolu ñetti weer ba léegi def nañu suñu dispositif ñun ba ñoom seen bopp ñu ngi def filature ñu ñu def leen contre filature ba tey yor naa fi ay film yoo xam ne filmer nañ leen ñu topp ñu ñi ma samay nit topp leen fu ma taxaw ñu taxaw fa fu ma dem ñu dem fa du benn du ñaar du ñett filmer yaa fii kon damay wax Macky Sall na noppal boppam lii lépp jaru ko moom ak as as looloom di de mu teg foofu muy ministre de l'intérieur dañu noppal seen bopp ñun Nous ay préparé coup d'état nous ay terroristes. terroristes. Nous acteurs politiques yi ont des avons am suñu gis-gis bu des gis Nous am suñu démocratie police ak gendarmerie ak armée c'est des institutions wala c'est pas des institutions c'est des organes dans un pays Nous sommes politique ñëpp am psychose ñëpp ragal si waa kër gi du xale yi du jigéen ñëpp dañoo ragal parce que jàpp nañ ni bu ñu génnee fii am na ñuy topp seen gannaaw tey su ma doon intervenir ci ñu jàpp tey mënoon nañ ko sacrifier ndax amuñu benn firnde ni kii police la bokk amuñu ko te ñaar ñiy ñëw saa su ne am na ci kenn koo xam ne sama waa sécurité dem nañ ba gis ni fu mu nekk mi ngi yor am gannaay bu mu yor ci suufu chemise kon kooku ñun kan moo ñu ne policier wala gendarmerie wala renseignement généraux wala est-ce que ay nit yi ñu yónni na pour ñu assassiner Ousmane Sonko kon tey su ma gaaw leen intervenir ñii mënoon nañ dal ci kawam te bu boobaa heure bi musiba am na kon nañu bàyyi yii ñuy foowee yii c'est sacré te du kenn nag ku dul Macky sal